justice ñu dem fa il faut justice leeral il faut justice leeral tey jii nii justice génnee lu leer nañ ñu taxaw ne duñ ko appliquer ça veut dire quoi ça veut dire que ne justice boobu ñu daan woo te démb ak bërki démb mosul leen a ñor li leen intéressé woon mooy génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi te loolu yaakaar naa ne nekkul euh, euh, comment dire. décision boo xamante ni sénégalais dinañ ko accepter comme ça sans polémique euh, Diallo décision bi nga xam ne moom lañ jël ndax déjà euh, dañ leen a tëjal seen i buntu ñoom waa euh, DGE maam Biram ñu ngi koy rappeler aussi ci côté administration foofu sax laa bëgg ñëw ak yow lii lan lay wundu ci administration bu Sénégal su fekkee ne day am ay décision de justice yoo xam ne ñu ngi koy génne te des fois duñ ko appliquer donte le président diggé woon na ko même su ma ci mois de juillet bi que ni décision yi nga xam ne moom la di rendre yëpp dinañ fexe ba appliquer ko ci réew mi problème administration Issa euh, mi ngi ci plateau bi euh, jarul sax ñuy sori mooy politique bi nga xamante ni mooy agent administration si lañ nekk euh, te loolu moom moo moo moo moo mooy indi problème bi parce que tey ki nga xamante ni inspecteur des impôts la bu nekkee di politique kooku mën nañ jox tin dootu tëddeet njaaxaanaay et looloo tax ñu ni. politisation bari nañ ci bari nañ ci politique bi. mi moom di keneen camp yëpp. mi moom di keneen am juridiction bu koy tere. mi moom di keneen loi bi da koy da koy tere. mi moom di keneen. Ah, mi moom di keneen alors. administration mooy li ma wax cest à bu demee ba am politisation dafay dafay indi problème nag parce que en réalité xam nga dafay am li nga xamante ni moom mooy euh, voilà nit ñi dañuy dem ba seen xel day tey ci par rapport li nga xamante mooy service bi ñu bi ñu war a bi ñu war a rendre euh, pourquoi DGE euh, tey jii état bi bëgg ci taxaw waxoon nañ ko depuis le départ parce que xam nañ ni peut-être bu ñu demee ci conseil constitutionnel li ñu bëgg peut-être mënuñu ko am ci administration bii nañuy jaar comme li ñu jaaroon ci DGE ba nee na li nga xamante ne mooy liste liste yeewi askan bi ci nañu ñu a jaaraat pour jéem a fexeel Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection présidentielle 2024. administration kese nañu mën a jaar parce que jàpp nañ ni peut-être contexte bi favorable euh, ci ñoom ba bu ñu demee ci conseil constitutionnel benn incertitude nañ fay fekk dafa am loo xamante ni jaru sax ñuy sori jaru ñuy wax waxu droit jaru ñuy wax leen nañ convoqué seulement le bon sens ñoom seen communiqué bi dafa ni moom euh, directeur bi dafa jot lettre boo xamante ni mu ngi jógee ci directeur cabinet du n'est-ce pas mm-hmm. ba mu jotee xalaatul de ba mu jotee lettre bi dafa exécuté ñoom ñi nga xamante ni mandataire euh, Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy avocat euh, wala mooy huissier de justice ba ñëwee ba tey jii nii moom déjà sax man directeur xam ci lan lay wax parce que ba tey jii nanguwul signification décision de justice bi mm-hmm. signification ba tey jii recevoir leen pour jël ko. pour ni au moins décision de justice bi ñëw na comme ni mu nangoo def accusé réception communiqué bi nga xamante ni moom moo jógee euh, xaw ma lu mu tudd. Euh, ministère de la justice euh, voilà ci directeur cabinet bi ministère de l'intérieur. non de la justice de la justice ak directeur cabinet bi moom déjà nangu ko de nangu sax jël signification décision de justice boobu. Hmm. nanguwul leen sax ñoom ñu ñëw approché ko pour jox ko léegi moom mu wëlbatiku ni. ñoom li ñu fiy def jarul ñuy ñëw parce que dafa am li nga xamante ni moom mooy recours suspensif loolu c'est pas ses prérogatives kenn santu ko ko kenn laaju ko ko du yoonam en fait recours bi wala wala wala recours bële yoonam nekku ci moom xam na nañ ko sant décision de justice a ngi nii danga koy exécuter huissier de justice day ñëw def liggéeyam da nga koy bàyyi mu def liggéeyam mais du loo xamante ni guleen la fi Sénégal ñi ngi fàttaliku ak euh, Déthié Fall ak Askan Wi mais ñëw nañu di remplacer seen fiche parrainage mu leen doon ñoom ñu dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel daan donc du première fois nañuy gis ay violations yoo xamante ni flagrante yi jóge ci DGE jamono jooju si lañ ni woon ñaari mbir moo mën a am ou bien moom dafa def lu mu def parce que dafa far wala ou bien daf ko def parce que dafa xamul te ñaar yëpp bu mu ci mënti doon mériteetul di diriger li nga xamante mooy direction générale des élections tey mu ñëwaat nekkaat ci situation boo xamante ni moo gën a pire parce que yow déjà nga jot benn notification wala lu mu mënti doon benn lettre nga ni da nga exécuter sans réfléchir te pourtant jamono jooju posé wul li nga xamante ne mooy recours bu suspensif ou pas jamono jooju lijjantiwul lan la euh, Ousmane Sonko euh, teg comme démarche tey jii jamono ji ñu indil ko décision non seulement accepté wul la signification de cette décision mu ni dafay jàll ci ay prérogatives am bay wax waxu kii dafa def recours boo xamante ne dafa suspensif ou pas cest bu ñu demee nag mooy mooy dangerosité administration bu ñu politiser mooy li nga xamante ni tey jii ñi nga xamante ni dañu war a nekk fii nekkal fi askan bi. bu ñu demee ba am yenn jafe-jafe wala bu ñu amee yenn kii ñoom ñu ñëw tëddee ñaaxanday bu nekkee ñoom ñooy politique mais souvent da koy gis ci seen ay décision te maa ngi koy dégg Thiam di ko nii bu baax a baax euh, Mouhamed Dem euh, mi ngi lay nuyu bu baax sama cousin la euh, fële ca Diourbel mooy ku nangu sa militant yi rek dugal ko ci mouvement bi alors <laughs> gis nga bu demee ba moom sànq dafa nii nañu respecté magistrat yi wax wax wax ba pare mais implicitement lan la wax ci sabasi parce que tout rendre décision de justice boo xamante ni daleen leen arrangé mu commencé di interpréter dinaan non nii la ko waxee ak nii la ko waxee bu nekkee arrangé na la nga ni ok d'accord institution dañu leen war a protéger dañu sacré seen décision kenn waru ko commander bu nekkee arrangé wu la mais du première fois sànq ñi nga ko fi wax Mame Mbaye Niang ba mu demee première instance ba ñu condamné Ousmane Sonko mais gis nañ fi lu ne dégg nañ fi lu ne. imaginez un seul instant kaddu yi nga xamante ni ñi ngi ko doon yëkkati yenn journaliste yi doon ko yëkkati doon ko teg ci kaw euh, magistrat boobu noonu un seul instant tey jii waa Pastef jël ko euh, teg ko ci euh, benn magistrat boo xamante ni dafa jël benn décision de justice teg leen ko boo xamante ni ñoom nekkul nekkul nekkul li li li li gën si ñoom wala li baax si ñoom donc li ñuy wax nii nekkul ay mbirum droit sànq wax na ko mm-hmm. Ousmane Khalifa Sall bañ koy xañ ay droit wa dinaan le rabat d'arrêt n'est pas suspensif def lu leen neex dañu dellu siwaat en 2022 voté waat loi organique boo xamante ne dañuy naan le rabat d'arrêt n'est pas suspensif waaw loo xamante ne nekkul woon lu suspensif depuis 2019 est-ce que soxla na ngay dellu soit en 2022 di naan le rabat d'arrêt n'est pas suspensif mbir yi nekkul ay droit nekkul ay loi nekkuñu ci ay tex mm-hmm. Khalifa Sall dañ ko jël ci biir kaso bi ne dañuy lever immunité parlementaire am Karim Wade dañ ko jël ci euh, lu mu tudd six plus de six mois nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko def lu leen neex jalgati ak ak yelleefam tey jii ñi nekk ci Ousmane Sonko di ñu naan te tantôt gis nañ ko tantoo gisuñu ko ay mbir yoo xamante ne booy toog di ko expliquer sax da nga dul xam lan ngay expliquer nekkuñu ci droit nekkuñu ci loi ci lu ñu nekk nag mooy volonté benn président bu ni moom mooy xool nan lay fexee ba yàqale pouvoir bi article 35 amatul mais moom dina fexe ba. amal article boo xamante ne mooy raw bu beneen waay joo moom moo koy tabb teg ko fi sénégalais yi consommé loolu je pense que ni le sénégalais ñoom ñooy jël seen responsabilité parce que nee nañ peuple a toujours raison et aura toujours toujours euh, raison et aura toujours raison euh, wax naan mbir mi doonatul mbiram droit yéen waa Pastef lañ bëgg laaj loolu mbir mi finalement fan fan la euh, Pastef nar a